kenn ku ne xam nañ ci réew mi ken ni lii xam ni moom lañ teg Ousmane Sonko dëppoowul ak benn sukkandikuwaay ci wàllu yoon loolu moom yaakaar naa ni Sénégal yëpp xam nañu ko ah te comme ku dimul ku demul xëyti dem xaata kon maanaam bëri du ñàkk ngir maanaam fii xam ni dugal nañ ko fi ñu fexe nuñ ko ci nuñ ko ci génnee loolu nag bokk na ci taxawaay yi xam ni ñun ñu ngi koy taxawee mooy xeex ci wàllu yoon xeex ci wàllu yoon nag duñ ko mën a def ci lu dul li xam ni moom la kàggu yi xam ni moom la ni àttee ko may bépp citoyen mooy dem clamer ko ci wàllu yoon te loolu ñi xam ni ñoo fare ci wàllu ni mel dañuñ ci booba ba léegi te yàlla aussi defal nañ ci ndam loo xam ni Sénégal yëpp teg nañ ko bët ndax la taxoon ñu ni moom du mën a bokkati ci wàllu euh, liste électorale yi ginnaaw bi nu waxtaanee ak wàllu yoon yoon xamal na ni ñu décision bi xam ne moom lañ jëloon teg ko ci kaw dëppoowul ak yoon ba pare mu santaane ci sensé maanaam ñu delloo ko àkkam ak yelleefam ci wàllu kon loolu mel na ni benn paa la waaye gis nañ ni ba tey maanaam ci wàll wu ni mel maam la waroon maanaam nekkul mooy ñi xam ni ñoom la yoon sant ni leen delloo leen kii di président Ousmane Sonko ci liste yi ñoom dañoo fittirlu ba léegi loolu nag bu amee. ñun duñ def lu dul aussi jaar fa xam ni moom la yoon digle ñu def te loolu dañuñ ci benn yoon ñu koy wéyal liggéey boobu alors ci wàllu politique it kenn ku ne xam na ni jumtukaay yi ñuy utiliser bokk na ci lu mel ni ay dénonciation grand Assane ak ay maanaam appel à la mobilisation pour demander à l'autorité en fait donc mu sàmmoonte ak ak ak yelleef yi xam ni mënut tënk ñu ñëpp te loolu euh, soxna Adja ma xamal leen ni la du loo xam dañ koy jël rek di ko wax di sànni déedéet kàgg yi xam ci la ñu àttee ko moo xam constitution bi di ndeyi charte réew mi. Mhm. wala muy code électoral bi xam ni ci la sukkandikoo ci wàllu politique moom moo may maanaam ku mel ni Ousmane Sonko wala ko far ci moom maanaam ay yoon yoo xam mën na faa jaar ba xam ne teg nañ ko ko ñu mën koo ñu mën koo ñu mën koo dindi.